ci discours yu njëkk yi nga xamante ni jot na ko tenir bokk na ci action yi nga xamante ni moom la njëkk annoncé wàllub cherté dund bi mhm. mhm. mhm. bokk na ci ay mbébétam loyer bi bokk na ci ay mbébétam ak yu ni mel peut-être nag ils y travaillent puis que ñi ngi doo ko teg gouvernement bu yees dañ leen may temps ba xool ba xam waaw mais na baral et puis wàññi bi tamit xaaruñ ay juróomi dërëm wala fukki dërëm wala cent franc ceeb bi tey buy jar cinq cent franc wala six cent franc dañuy xaar mu jar moins de 300 francs. c'est-à-dire yéen actuellement da nga nekk ci logique gu defante ma loolu laa gis. non du mais ñoom ñoo ñu dàq. defante que voilà comme ñoom fu mu ne nii ñoom ñoo ñoom ñoo foq ci nguur bi seen loxo rek mais ñoom ñoom ngeen leen may dara. ñoom ñooy defante parce que ñu ngi nii ne euh, dañuy teg euh, réduction des comptes. ñoom ñoo commencé defante mais mais pourquoi pas. amul problème réduction des comptes sax lu yoon la parce que buñ la dénkee dañ la war a saytu wala boog boo paree ñu xool. la nga liggéey. parce que président moom ba tey moom il est constant ba tey moom a ngi ci logique am logique gu jub jubal jubanti. mais kuy kuy jubanti da ngay jub ba pare ba pare di jubal. ah ñoom jubuñ ñoom jubuñ. lu tax nga ni ñoom dañu gagné rek dem tëdd hôtel. Euh, euh, ja euh, Jomaay ak toute sa clique dem tëdd hôtel bi damay bañ tudd turu hôtel bi xam nga oui mais c'est en attendant que aussi def la même ñuy apporter ñuy li nga xamante ni moom moo di pale bi ndax ku ne xam ñoom amuñ kër pale bi nit bu génnee président bu génn balaa muy dogal quand même dinañu amuñ kër dinañu réfectionner mais président Macky Sall président Macky Sall bi mu nekkee au pouvoir bi mu nekkee au pouvoir këram la doon jóge di dem pale ba am à un certain moment biñ defee yi ñu war a defar yëpp comme comme yi ngay wax certainement ñoom sax dinañ def ay. débat pour des mesures de sécurité est-ce ah. position am. Mhm. ak kër bi nu mu nekkee ak ni mu xawee enclavé et tout. Ah. est-ce que tey jii par mesure de sécurité may nañ leen ñoom. ñun ñu nekk foofu est-ce que du juste euh, c'est pour mieux assurer sa sécurité moo tax ñu préférer tey jii bàyyi ko mu logé ci hôtel bi en attendant ñuy réfectionner palais présidentiel mu mun dem dëkk. d'accord na ci sa ah, sécurité oui ndax moom bu amul sécurité ñun ñu am sécurité mais dootul dem këram même bu fa même di fa doxantu sax même s'il habite au pale moom xanaa bien que ñaari euh, soxna la am dama xamul sax nan lay dëkk ak ñoom ci ñaar euh, ci ci palais bi loolu moom moom la moom la conserne mais le président Macky Sall moom laa lay wax léegi moom këram la doon jóge au départ di dem di xëy pale bi le le temps que ñuy def pale bi aux normes terewul après à un certain moment dëkk na fa au moins benn un an wala deux ans mais après dafa ñibbi këram président bu demee palais rek c'est parce que dafa xëy dem liggéey c'est-à-dire man actuellement vraiment li ma nekk di gis nii Ahmed Suzane man dama nekk di gis euh, koo xamante ne yow yaa ngi toog nii genre yaa ngi critiquer rek pour critiquer mais est-ce xam nga li nga wax nii vraiment du li nga xamante ni tegu na fu woo tegu na fu dëgër hmm. parce que li nga wax ni moom c'est terre à terre président lu tax mu dëkk fii tax mu dëkk fee yow fu mu ne nii ci li ngeen wax a a concentré wu mooy may ko temps mu liggéey bu demee nag bala mu diggoon nag askan bi def ko boobaa ngeen toog ci plateau yi pour critiquer waaw on a comme l'impression que ni yow daal neexuñu la et que voilà seen ñàkk neex bañ la ñàkk neex moom loolu mooy reflété ci li ngay wax nii léegi euh, may temps oui mais xuppaate bi parce que ñoom déjà motion de censure bi xam nga maa wax léegi réduction des comptes bi rek bi rek ñoom dañu xupp commencé di xupp nit ñi comprendre rédi euh, motion de censure bi nga xam ne ci njëkk lañ ko war a ñaan wala war a ko wax mais defuñ ko di xuppaate yow dégg nga seen porte parole. non amuñu lu ñuy ñaan ci njëkk actuellement ñoom ñoo yore réew yéen yéen a war <laughs> kan moo yor majorité. yéen ñi ñuy naan li ah, yéen ñu ñuy dégg ci ay ci ay ci ay rapport seen ay jege jegeñaale. ñu ah. ñu leen ci lim. Ah. ku mel ni Mamour Diallo. waaw c'est-à-dire des comptes bi loolu bul jógee ko foofu c'est important. gis nga rapport OFNAC yi nga xamante ni publié nañ ko. Euh, Serigne Bassirou euh, Bassirou Gueye bi nekk OFNAC mi nga xam ne ne également dina publier yeneen rapport comme mm-hmm. ni ko président bëggee. Mm-hmm. Euh, kon kay fu mu ne nit ñu war a ñaan yegg seen côté la war a gën a faytee. parce que rapport bi nga xamante ni moom lañ njëkk publier dafa mel ni Ousmane Sonko am na dëgg ci ki nga xamante ni moom moo di Mamour Diallo bon loolu mën naa ci revenir mais euh, rapport kay mais am na si ñoom ñoo xam ne ñu ngi ànd ak ñoom si rapport yi am na ñu ci épingle euh, euh, l'actuel l'actuel directeur de cabinet du président de la République te bokkoon ci ñun Mary mais rapport yi épingle na ko plusieurs fois plusieurs rapports l'ont épinglé. mais loolu Mimi Touré moom laa jëm. xasaale ki dana ki sax tuuti sax presse bi dañuy jouer sax souvent ak yenn termes ay mots épinglés ak autres <laughs> mais moom nee na fii ak mille fois tey ji bu ñu doon fuyee. kenn mënu ko impliqué ci dara. mais euh, euh, euh, Penda mais loolu kay dafa yomb fii kuñ fi accusé Mamour Diallo bi nga tudd léegi taxawul fii ne moom deful dara cour suprême setal ko cour d'appel setal ko. Euh, commission euh, parlementaire setal ko donc fii ku ñu fi tudd mais nga taxaw ne defuma léegi nag kan moo war a prouver euh, def nga am defuma Mimi Touré déjà deux milliards te loo te te te loolu moo gën a tuuti ci rapport yi ko épinglé du moom moo fi nekkoon ministre de la justice moom kon war na rapport ñu koy tudd ci rapport est-ce que dégg nga rapport yëpp dégg nga de 2005 rapport yi ñu cité bien que am na yu ñu ci jot a publier ñaar yu mujj rek lañ ci publier wul est-ce que mës nga dégg rapport bu épinglé Amadou amul amul donc booy set foofu la set commencé benn rapport bañ la tudd am na ñoo xam ne tey euh, géré leen fi te rapport mosoo gis rapport bu leen épinglé te rapport bu la épinglé taxul nga def taful nga bañ a mais ñoom neen commencé si ñoom ba pare Euh, sama ministre de l' éducation bi nga tudd léegi mais bi muy nekk ministre de la communication mook Abdou Aziz Sow mais rapport 2008 2009 épingle na na na ñëw satal moom it euh, Samba Ndiaye mi daw si ñoom te nekkoon DG Sirna tey mu ngi ci ñoom moom euh, rapport épingle na ko te te luñ ci xamul xam nga rapport day am pré rapport c'est-à-dire yow dangay xam ne yow mi rapport bi am na lu lum lum la tuddal bu ñu la yónnee pré rapport bi nga xool yow it indi ci ay euh, maanaam tontu ko ak yooyu léegi bu ko defee nag bu ñu ko publier nag si lay nekk rapport donc ñoom am na ci ñoom même euh, Birima Mangara mii li taxoon mu doon essayer di daw jóge ci ñun parce que peut-être xëy na xencu na ne nguur gi dañ koy ñàkk te am na ay rapport yu ko épinglé xaaral ma daw dem opposition Birima Mangara am na ay rapport yu ko épinglé donc kon neen teg rapport yëpp sur la table. te ñoom neen commencé mais ñi nañu. dinañu doxal yoon. Ah. amul kii fii la far amul kii fii la far. ils ont été ah. clairs là-dessus on va applaudir. voilà ils ont été clairs là-dessus on va applaudir. dès le début. on va applaudir mais buñ ko bëggee yemale si ñun kese ñi des si opposition bi c'est-à-dire ñu teg rapport sur la table soit nga ñëw ci ñoom wala nga noppi wala ñu dëj dëj la ci kaso bi. parce que aussi loolu la ah. ndax jàpp nga ni yoon mën na dal ci kaw. non Mamour Diallo 94 milliards yooyu moom su fekkee teg nañ ko ci yoon Mamour Diallo. kenn du ko laal wala bokk da ciy set wecc parce que 94 milliards bi ko Ousmane Sonko di di euh, di ko di ko soulever mais loolu c'était pour def un boom médiatique parce que boobu jotoon na fekk mu wax ne les anciens présidents dañ leen war a fusiller mu nekk wax ju rëy ñëpp ŋàññi ko ci bi muy génnaat il fa que mu génn wax loo xam ne ñëpp dañuy fàtte wax jooju kii de communication la rek mu génn wax 94 milliards xaaral léegi 94 milliards yooyu. waxoon moom bu ñu lire rapport bii ah sorewul ak li mu waxoon de. waaw dama lay wax bi mu waxee. 94 kon nag waxul woon rek pour wax nii rek. <laughs> mais li ma la wax kay moom waaw léegi moom laa la wax ne la 94 milliards bi mu ko waxee Sénégalais yëpp y compris yow man dañu jàppoon ne xaalis 94 milliards xaalis buug teew la bu ñu bu ñu lekk te yow xam nga ne 94 milliards du xaalis bu ñu lekk affaire terrain la woon. dédommagement te yooyu bëri na fi way ñoo xam ne état moo jël seen suuf utiliser ko parce que yéen tey jii fii ngeen nekk nii moom ko état bu ko soxla woon léegi war ci def dara da koy jël loolu état am na ci droit mais bu ko jëlee day am compense c'est-à-dire day da lay wutal feneen à peu près la même valeur et mën na bañ a egg egg sax exactement la même valeur mais au moins soit c'est la même valeur mais dina ko jege tey li ñu gis après ci ci euh, ci ci rapport mooy que moom ci boppam moom daf ci amoon pourcentage parce que dossier bi dañ ko ko joxoon te man dama lay wax man maa ngi jàkkaarloog yow ki ko jox dossier bi dama ko xam comme ni ma la xamee yow. kan moo ko jox. non bëgguma wax turam parce que kooku euh, euh, kii la mais man Ousmane Sonko na ma interpellé personnellement ma ne ko diw moo la joxoon dossier bi. et puis depuis lors maa lay dégg yaa ngi yaa ngi insisté ci terme boobu Ousmane Sonko na ma interpellé Ousmane Sonko na ma jàpp Ousmane Sonko na ma rey ba ma rey ko lan mooy sa problème ak Ousmane Sonko ak Ahmed Suzanne yow fii nga toogoon ay temps mhm. wax fi ay bal jëmale ko ci Ousmane Sonko mhm. tey Ousmane Sonko nekk premier ministre euh, Bassirou Diomaye Faye à travers seen slogan Diomaye mooy Sonko Sonko mooy Diomaye tey mu accédé au pouvoir mhm. nga xam ni ñii tey euh, buñ la bëggee yëkkati léegi fi nga toog nii ci sama plateau yëkkati la et pourtant ba tey yaa ngi leen di yaa ngi leen di yaa ngi leen lan nga ci jublu da nga bëgg ñu jàpp la wala. <laughs> bon de toutes les façons euh, man c'est pas la première fois may nekk ci opposition nekk naa ci opposition ci bi PDS di exercer le pouvoir euh, j'ai été de la fonction publique ci temps wu PDS 2009 j'ai été déféré à Rebeuss donc j'ai la prison man kese ku ànd ak Macky Sall maa def. man lañ defee defeere jàpp ma fekkee commissariat la commissariat HLM jàpp leen moom commissariat jëppal avec les jeunes de Benno comme même Koungheul sax j'ai été arrêté ndax fait de politique alors donc en 2010 octobre 2010 dugal nañ ma ci kaso bi fii université les enseignants les étudiants euh, du PDS agressé nañ ma dóor ma muy bëgg a donc kon xam nga kon man euh, ñoom ñu ñëw def la même chose man du dara ci man donc tàmm naa ko te xam naa ko mais jeune ne cherche pas ñoom du de euh, ci kaso bi lañ jógee dugg ci pale bi. Hmm? waaw waaw léegi ñoom su fekkee ñoom dañu jàpp ne ñoom te ñoom ñoo doon wax ne Macky Sall kuñ ñoom ku kuñ jàppoon si ñoom rek ñu ne Macky Sall moo la jàpp kon ñoom waruñ def loo xam ne moom lañ doon moom lañ doon tuumaal. Ah, waaye tey <laughs> ñoom waruñ ñëw jàpp oui mais loolu aussi ça ne veut pas dire que ni rek da nga war a tamit nekk ci télé di wax lu non d'accord na wax lu leen neex di def lu leen neex Ousmane Sonko eh, am amul lu mu fi waxul Macky Sall ma taxaw na fi ne Macky Sall dig ma rey mbaa ma rey la taxaw na ne gat sa gat sa taxaw na deux cent mille personnes dem déloger le président Macky Sall taxaw na ne dañu war a daggate président buñ ko jàppee dañ koy daggate comme ni ñu defoon moo gën a grave man waxuma loolu j'ai pas dit ça. waaye waxoon nga fi Ousmane Sonko dañoo war a dañ ko war a faat. waaw mais c'est parce que contexte bi moo tax boobu bu amaatee je répéterai les mêmes mots mais nag je ne cherche pas à être su leen su su su fekkee nag li may wax dafa leen déranger mais nañ ñëw arrêté ma wala mu ñu ñëw rey ma. wala ñu ñëw koj ma dóor ma moom mi bëgg de amul problème j'assume aw ma lu ma ci tiit aw ma lu ma ci ragal mais lu waay rendi rek. sa loxo lay naaj ñoom luñ ma mënti def su ma fayulul sama bopp dina am ñu ma fayul te yàlla it mën na maa fayul